commerçant yiy jaayee ci diwaanu Sandaga fan yi ñu génn njàqare leen dëkkee woon lool ak événement bi ñu dëtmal di tabaski ñu ne woon nag dañuy toj marché Sandaga bi niki tey ci aljuma ji bu vingt 22 heure jotee ñu gis na nag tey bi ñu xëyee ba tey ñi ngi def ay démarche ngir ñaan ñi nga xamante ni ñoo ngànk mbir moomu moomule ñu may leen ba tabaski gi jàll ñu gis na léegi nii rek ci jàkkaarloo bi amoon ci diggante Aly Ngouille Ndiaye ak délégué wu Sandaga xam leen nañ ne loolu ñu doon ñaan may nañ leen ko ko dàqani nag bañ tabaski ba ca ginnaaw ëllëg sa ñu daal di boobu boobule marché di Sandaga délégué ba nag daal na ciy toftal ne dina fonk seen kàddu ba ni nga xamante noonu la leen ko ñaanee ngir ñu dàq ko ba buñ tabaskee ba ca ginnaaw ëllëg sa ñu mën a ñëw toj li nga xamante ne nii ah moo di marché Sandaga